semua derde moode jantinjolloor seydi isa roh rohulay seydi isa rohurahman feydi sam samfila I no te ñaan yàlla ci albaaram yàlla yàlla defal yokk fu mu lu tax adduna lu ne am na réponse jamono si na limaamu Maalik la woon wàcc ci Seydina Isa tudd sunu maam bi baax Seydina ba ñoom sunu maam yi baax Seydina ak jàllam bu ak ba tabaaraka Allahu ak li fi nekk lépp loolu lépp muy xeeti sant yàlla yoo xamante ni ah lu mu war di mën a dundal la di ko fàttali lool lool lool lool lañ yàlla ne yàlla fa tabarakallahu fee kon bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam على اشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحابته الكرام ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سيدنا نقول لنيو إلى جهته لخليفهم سلوم أحمد سنتما كرم له ci taxawaay ci ak boot gi nga bootee njaboot te dëgg ci lu ma xam bare bare bare bu baax la bu lewet sëy naa yàlla na yàlla dimbali jàppale la bu baax nuyoo sëñ Omar sa jëwriñ amit taxawaay yu rafet ne ci gox bi ak ci fépp dana taxawaay yi dina rafet am nañu mbégte mu ah seen waajur de yàlla mooy boole ay nit defe naa ne yàgg naa ci nga xam nee naa leen man chance la am damay ndaw ca boobu jamono mag ay mag lu tax ay mag rek. laa seqoon ndax sama maam daal maamu mel melokaan wa mu mel ba ko yàlla defal damay wax nit dinaa ko répété taarixal suy naa ni maamu génn ci bayti maamu sa xalima day dam loolu la yàlla def kon mu gërëm leen bu baax waaye jaar ci yéen am ku am solo bàyyi kooku mooy suñu bàyyi lu tax moo bàyyi taawu suñu jàppale fépp fu ma taxawee lii may yëkkati tey ndaw El Hadj Mouhamed Sakhir Gaye wax ko keroog bu may jàng yi yëmbal bàyyi dina jàpp ci sama loxo suñu ablaye yëngal ko ci saa si bàyyi ko booba daanaka sama bàyyi moom moo ci kër yàlla yàlla yor ci defe naa ni. bàyyi du loolu loolu dawal na Serigne Ablaye loo xamante ni loo xam ñun ñii dawal na lu ci lu xam mel noonu xam nañu kan mooy bay yàlla na yàlla yokk ay leeral bis bii ak ci lii ba mu cee doon dëgg ah ku taw bi xam ne bay na kon sëñ Ousmane keroog bi ñëwee fii ñëw jóge ci dëj bi ñu ne ko yaay Serigne Gaaxam bàyyi dund la mu njëkk ñun ñooy wax ne leen mais moom lakk lakk amal soxla lépp mooy demal leen defaral leen ma bokk di def leen di def leen di def leen di def leen kon nit da nga koy defal ay volonté boppam waaye du bëggoon mbokk la ak i mbokkam ci dund bi tasul kenn kon mu ñeen fekk it ñu ngi war soo te ñoom ñii waaye du nag parce que nu jaayeen di borom dëkk bi nag ku ne taxaw na ñii bokk fii ñii bokk fële ñii bokk fële lépp waaye ñoom ñëpp di ay mbokk mbokk gën a dëgër gën leen a boole ku ne gis nga lay mos yi daal di waaw ci kon wax naa ko ci suba ci foofu lañ def suñu tànk lépp lu sëriñ Ablaye doon def te la mu doon def mooy neex mooy neex yàlla yàlla bu muy bind tàggu kenn buy maye du tàggu kenn buy nangoo du tàggu kenn sëriñ am laay xamee ni yàlla mooy joxe la nangul ku la nga yor waaye gaa yëpp nangul kaat bi mu yor mag ñu baax ñi oustaz da leen fenn muy sama maam doon yokk leen soo maam Babacar yàlla ak seeni i njaboot fu ne am na lu mu def ak ñaaw ñoo ñaar tekk fu ne njàngal leen la pour lan pour xale yi waaye yéen yàlla nañu ko muurloo sant bu baax dëkk bii nga moo xam tarixa yi fi ne yëpp fii doo fi xàmmee nangam kër yi ngeen duggee ñii kër ma borom Tuuba ñii Tiwaawan la ñii Njaasaan la ñii ñii ñii la ñu waaye diine ji ak mbokk gi kii ngeen wan ginnaaw tey bu sëñ Abdoulaye sëñ Abdoulaye yàlla yàlla yokk leeram joxañ taal bi murit ñi leen di xaar dafa la leen leen di sëñ Abdoulaye waaye bu ko fekk woon mm-hmm. fii ku tey yooyu Youssou Ndiaye ñoo fi newoon commerce ak ñeneen ak ñeneen bon maa ngi ñëw gàttal kon kon la ñu yàgg na sëñ Abdoulaye yàgg naa baax yàgg naa gaa yu baax. lii xew fii ci suba maam Malick Moussine Mansour yabal fi defe naa ne man. ku ma xam-xam bee nga mag Serigne Mansour lool dañoo jaxasoo bokk na ci ñaari yoon fii dina ma bokk moom te wàllu ci bàyyi ci ñoom aussi dara yàlla dara wóor ci wàllu wàllu jigéen kon moom it defe naa ne ca mbaaw ci fenn kon réew mi dara dara saa taxawaay bi ñu taxaw fi am ka ci sëñ Omar nii waxal na seen bopp ak li fi yëkkati bu lëb na kuy ku baax taxaw na te góor gi noonu rek la may kon loolu du tànk ñu dund waaye ñuy ñuy ñuy ñuy am jom ku dee si naa di wax bind lettre am lu mu ca wax ni ba tudde tur waxee boobu ak ñett des kon ku ko dundal dundawaay kon dundal ngeen rek seen dëkk wax naa que fii ci cérémonie bi nee naa leen cérémonie tasee damay jël sama oto ñibbi ñibbi nag ñuy sànnentee xëy ca tundaw ñu Serigne Ba la noonu Serigne boobu. boo ko def yàlla nee na yonent bi nee na boo ko rek noppalu. noppalu kon tunda bi daal am nañu mbégte ci yéen. rawatina dëkk bii di Ndar fa tabarakallah sant gërëm ñaareelu gërëm yi mooy wax naa ko sant fu ngeen jàkkaarloo jaam yàlla yi bàyyi njiit ma ne ni loolu la sant leen leen gërëm leen taalibi laay gis nga ñii lu ñu am ci àdduna yéen a doon mu ko waaye ñu ngi bu ngeen xoolee nii nit ñi nii am nañu nii ñu leen jaay ne leen jaay na lool. waaye yàlla leen yàlla màggal yàlla leen yàlla yëkkati yàlla leen yàlla kaweel en tout cas bëgg nañ ci yéen bu baax a baax. ah ëpp ci li ma gën a ñor mooy. fa tabarakallahu ndaw ndaw ñi dañoo wax ni amalun wa amalun wa tubuxun ndaw ñi yëngu espoir ak ambition fii jamono toll say ndaw da nga leen tàggat ba nga leen tàggatee nag ca la neex yàlla ci lii teg leen ci nangam diine lanu ñëw fii day ci laaxam mu jaral fa tabarakallahu ñii sax amuñu fa lu toog ñii amuñu fa loxo diine kon loolu tamit ci ginnaaw yàlla nañu am lu wol di leen wax li neex yàlla ak yàlla xale ëpp ci sunuy mbooloo tendance yi xew wax nañu ko démb diine jàng nañ leen xamal seen diine na mu gën a tawee waaye bu ñu yàq seeni xel ci jeexi jaax xam nga jeexi jaax mooy lan discours yi ñoo bari wax ji bari parce diine moo dema dema dema dem ba nekk terrain boo xamante ni suqa yi mbëri yi ngay bëgg naa ñëpp ngi ci moo tax day jaamu gars yi dellu si ci gannaaw ma ciy profité félicité et encouragé bachir yi ñi fi xale yi ñi ci doon def ay examen ñi ci doon def ay nanga yéen ñëpp ñu ngi leen di di leen gën a encouragé اعلموا ان الدين لا بيع sawaun fiihi alkabiru wa saxiiru wa rijaal wa nisaa ila xam nga lu yéeme la parce que ñi ñu tudde ñëpp responsabilité du benn ci gis-gis waaye ñooñu ñëpp ñu tudde ndaw ñaar jigéen ñaar góor ñaar leer yaa ñaar sawaasiya ca yàlla lu tax moo nawal na faq fii li mel noonu ñooñu kat ñoom ñëpp yàlla moo juddul liir bi màggatal ci màgget waaye ñoom ñëpp la ci teraanga xuliqu min nafsin waahida ah fa tabaarakallah ña féete ne seen responsabilité dafa war a jëm ca ñañu tane ña cay mag ña ña nga xamante ne du ay àggagunu ci mu kàllaf ña àgg ci mu kàllaf te seeni waajur ah jéem a ca yoon ñoo ñaar ainsi de suite donc doomu adama fi ñuy gënantee luci askan defe naa ku ne gis na la ci bàyyi lay wax fi islam mooy taqwa Allah ragal yàlla nag dañ koy tàggat ci doomu aadama waaye bu mu doon moom rek bis boo tàggatee doomu aadama nag ba mu am la kon njaboot di mu ngi leen di félicité di ñaan yàlla mais yàlla na ngeen gën a nangam parce que suñu njaboot lañu ngeen baal ma li tax ma jël lu mel noonu dafa ko fu jël kon jii ngeen tudd jërëjëf ah gars yi dañu woon tante yaa ngi nangam waaye tante yaa ngi produire ay kaar <coughs> nuyu suma kilifa yu baax tudd ngeen leen fii taalaa nga day toog di meeru Malika maam mëgay di meeru Ngor sunu jigéen Marième bi sunu doom fa tabarakallah wala ak député wala ñoom ñëpp ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon yéen tim ku ci nekk yàlla na yàlla jàppale ci laa la ca des fii jamono bi suñuy bàyyi mu ci ba léegi ñuy ànd tey téyante li ma leen di dégg ànd leen téyante leen bëggante leen ànd leen téyante leen bëggante leen mag ñu baax ñii oustaz Sakir leen sànq yëkkati leen teg waa ji ku ci ne gis nga ku ne boo xoolee sa bopp kucine won nekke so bokko e nokko gomman wote uma cem wonanam man wote umo man gurum lew lako waaye dama ne na fi mbëggeel nekk na fi ànd nekk gis nga intérêt yi adduna yi ak bu mu ci man ci doom fatabarakallahu yaakaar naa sunuy waajur nu bàyyeel ci lii ci ngëneel jeexal kon di bambaro Touba yàlla yàlla نال ان التحابب هو الايمان لاهله السرور والامان من اما التحاسب فللشقاوه يقول اهله في الاحلام يا وجب من تحاببوا في الله ذي الجلال بلا تنازع ولا ذلك. لا يجبني بدنتلين تفنتلين فو gënal góor bu baax di suñu maam abdulaziz Aziz tayyaba Dabakh tayyibana wa sara yàlla yokk leeram dafa wax lu am solo dal dani mujtama laa yartaqi zaydun wala yataqaddamu amrun من فإن لا fa من lil من wa lil وللمبادئ nee na société boo xamante ni ku tëb ñu ne ñu ko ci sa tànk yàlla wàccal kenn du jóg ku jóg ñu jóg rek nga defaat nii góor gi nee waaye bu fekkente ni par rapport loola waaye ngay doon diine ji ba pare ak presse xam nga nit amatoo diine amatoo presse moo gën danger xam nga gëmul dara gëm dara mooy presse. yàlla ba mu waxee gars yi la ci ren amuñu xam nga ne kafaru xam nga ñaan diggante bi la yàlla di maa bay kon fi dara ci askan wi la kon suñu gis bu rëkk suñuy nangam dootul bari ci dara xanaa gërëm sant bay ci taxawaay yi ci ànd ak ak nag encadrement bi ci njaboot waaw loolu nag sëñ Mouhamadou Mokhtar bi nga xamante ni fa tabarakallahu mooy xalifa bi ñaanal ko yàlla yàlla fi yàlla ñaanal nit xulafa ak torob suufee fi bilaad kilifa yi diine yëpp ci leen yàlla gën leen a yëkkati gën leen a nous sommes fiers ci l'islam bu Sénégal

sant leen gërëm leen jàpp leen leen gërëm yéen ñëpp am nañ ci yéen mbégte lool libaas sàmb nga ne lañ wax ci yëmbal sànq lu ne fekk si ne ma fële libaas jërëgéen jëf yaa ma ci daru Omar wa waaye jóge na fi waaye leen yokk leen yàlla na leen yàlla jox fii ñu toll man lu ma waaraatee damay waxtaan xamul lu tax mais jamono bi mais gars yi ñu bëri da nga waaru ñi waaraatee du waaru waaru lu bëri la waar ñenn ñi ca laa xam ne da ngay xam nan lay waxtaan di delloo si nit rawatina sunu ndaw bi bu ñu demee ba gis ngeen fi jamono si nañ ci une révolution technologique bu doy waar ci àdduna yow nga am say ndaw ñu leen def leen ñu leen dugalee ci seen i programme gaa yi di xëy na di gën a def am déedéet loolu bëgg xale yi ngeen gën a spécial ngeen gën a xóotal seen i xam-xam xool leen ni ñu tuddee ay numérique tey nga ñëw ci wàllu intelligence artificielle. nangam ñu lay indil ay nangam rek te loolu lépp recherche ak xam-xam moo ko waral am na ci ay université yoo xam ne boo dajeel espace CEDEAO lépp seen bitt ci wàllu recherche moo ko kon adduna si ku bëgg a déglu la laaj nga naan lii kenn na fi am lii nangam na fi am da gaa yi xóotal xam-xam yi ba ca des nag nee naa leen amal amal lu mu wax action, espoir ak ambition espoir mooy lan yéen jël leen yoon ci yàlla ndox li mu ne xam leen rek xutba dem leen ci ayu bëri mu rek ana lan tàgg wala nangam ak nangam ñoom ci yàlla yusuf 40 ans la ko yàqu ba ci bàyyi nangam ba ñu daje 40 ans mais teewul yàlla day la di loolu yëpp bu dee yaakaar na yàlla tasum seen yaakaar kon yaakaar ci la xale na ngeen gëm leen li ngeen di def gëm ni da ngeen a war a ku ngeen toll ami ambition ba ngeen nangam fa tabaraka allahu d' accord kenn mënu la remplacer doomu aadama nit mais tey jii gaa yaa ngi fa tabaraka allahu kon sunu xale li tax ma am mbégte mu rëy am na ay information yu am su nombre de bacheliers nombre de ceci day dal xel ci ku nekk réew mu mel ni Sénégal nekk di feneen laa ni avenir bi ci xam-xam la nekk bàyyi lay boobu ñëw ci kitaabu lay wax dara ba mu ne an taqra wa tatlu nee na al nga bàyyi lay jëm yamu ca ak nit pour ñaar ñaare ba anta amal ak ma waaw boobu digal digal digal na xam tey alqiraat boo ne benn qiraat waaye ñaar ñett la ci laa ma doon dugg wala télé ko aadama kon ka digle ñu saytu te ma faral naa fi kitaab ñëpp ñu ngi biir eh, ingénieur yàlla ba àndax la ko saytu ko ba lépp nga ci biir ñu si kon waaye xam-xam na fi ne mosu fee rakk mosu fee nangam mag ñi moom la amoon bàyyi tamit bàyyi bàyyi la ca des wax naa leen di gis nga. waxaat naa la ci suuf am xam jombu leen waaye yàlla leen ko yàlla defal téye leen seen diine doon leen ay citoyen boo téye leen seen diine mais lu muy yëkkati ci lu baax ku yëngu na leen ci fekk sa xaal ba bañ leen bàyyi lay ko wax rek lay am gàttal samay wax lool ñaanal leen ñaan yàlla ci ak baaxam yàlla nanu yàlla def ñuy dëgg-dëgg jullit yàlla nanu bëggante ñun ñëpp yàlla nanu téyante ñun ñëpp fa tabaraka allahu ku ci ne am la lu la yàlla man loo ku ne la nga man ci lu baax defal lay safaan ba bu dee jaar ci des mi ngi ci sunu kanam man amila saalihan fali nafsihi transfert de ceci waaye ñun ñëpp yàlla de wala tufsidu fil ardi baada islaahiha dañu ñu koy de kon ku ci nekkoon ci jub ku ne woon ci lu baax dana la baax loolu rek laay am di ko digle aqulu qawli hada wa salaamu aleykum wa rahmatullah